yëkkati ay kàddu nuyoo. jërëjëf jatara kàddu nuyoo mhm. di ko jébbal suñu wéyjur. di ko jébbal suñu kilifa. di ko jébbal ko xam ne kenn la ci Sénégal. Mhm. kenn la ci Afrique mais également kenn la ci monde sportif. surtout le football. Mhm. muy la pèlerinage la ci ñun. seet si la taasu barke lay doon. jërëjëf jërëjëf. seet si la taataan barke la. jërëjëf seet si la également taataan si conseil la mais loo xam ne jiitu na sax lii. ndax fi nga féete réew mi. jërëjëf fi nga féete Sénégal. Mhm. ci sport surtout ci football. de la bi Sénégal même fi nga féete Afrique. jërëjëf c' est une fierté nationale. merci merci. te loolu sutura bu yàlla yàlla defal. jërëjëf barke bu ne ci yow la. jërëjëf ñu ciy taafu yàlla barke boobu yàlla na tis dal ci ñëw. yàlla amiin amiin yàlla na gën a yàgg. amiin jatara yàlla na gën a yàgg. amiin amiin sa njaboot moo fi teew. jërëjëf njabootu président la république moo fi teew. njawootu également président Idrissa Seck. jërëjëf ñëw ziar la. jërëjëf jërëjëf. tàllal loxo. jërëjëf tàllal loxo pour sàkku ñaan. jërëjëf jàppale. yàlla moo dogal. Mhm. kuy sénégalais. suñu mag ji sànq bi muy wax Bécaye tonton Bécaye wax na soixante quinze. Mhm. marché boobu muy wax j'avais un an. kon nga xam ni. li naan ba Pa Mansour sama sësët. si si damaa ñëw mu xëcc ma tax ma ci dënn. Mansour Mbaye ma tëdd ci kaw Mansour lu bari. lu bari. fekk na lu bari man sëtam la. Eh, si si jërëjëf. jarabaatam la yow it sa jarabaat sa doom. jërëjëf jatara bëgg sport màgg ci mais vraiment lii président de la république def ci contexte bi. Mhm. ci yaakaar la ko teg. jërëjëf ci yaakaar. jërëjëf mais également ci confiance. Mhm. ma ciy sàkku ñaan. Mhm, ñaanu réew mi yëpp mais également sàkku ci conseil. surtout ñi nga xam ni yàlla def na. fu ñu waxee réew mi dégg leen mhm. fu ñu waxee réew mi déglu leen mais également seen xol bu rafet mhm. seen patriotisme mhm. mais également seen expertise à la matière kenn naan tapale lootu ko tax na yow sutura boobu la la yàlla defal doo yàgg donc ñu yàgg la suivre yàgg la déglu di la déglu ndax ay sportif lañu mais également ce que vous rappelez l'histoire vous êtes la mémoire collective yi en matière de sport surtout de football yow la ko yàlla suturaal tax na loolu defe naa ni histoire yi ngay rappeler. Mhm. defe naa day gën a galvaniser. Mhm. la jeunesse mais surtout les sportifs surtout les jeunes. Mhm. yi nga xam ne ils sont en compétition. jërëjëf li ngi leen di rappeler démb moo leen di motiver mooy seen. mooy def tey wax nga dëgg waaw. wax nga dëgg loolu mooy la la sève nourricière. de leur performance d'aujourd'hui. de ce point de vue là. dañuy gën a tàllal la xar. ñaan di sant nag. sama tata. jot naa téléphone. waxtaan nañu waxtaan mu am yéene. vraiment ak les anciennes gloires yëpp. gis nga mm-hmm. nekk suñu wet. Mm-hmm. mobiliser moom c'est une grande sœur c'est une sœur. vraiment moo sama sœur yi ñoo doon basketandoo ñoo defandoo champion à Ziguinchor la famille. ñëpp vraiment ñooy ànd. vraiment ci yéene aussi ci cofeel mu mobiliser wu ne sàmm dama jàpp. Mm-hmm. jërëjëf vraiment ba tax na tonton. Euh, Bécaye moom kenn mënu ko fay comme li ñu wax rek ci yéen mu rafet ci taxawaay aussi ak ci yéene macha allah noonu la mel ba tax na daal doyen looloy kaddu euh, jërëjëf euh, mon très xel dafa gaaw dafa am Bécaye tout de suite lu ma wuy président Senghor dafa doon président Senghor dafa doon wax boo nekkee ci lu bare mbooloo da naa leen toujours e gars yi lu ñuy def fuñ koy defee mm-hmm. koy defee loolu mooy gagner ensemble su ngeen di perdre ngeen perdre ensemble ma dégg un jour Moustapha Niass ni mm-hmm. xam naa lu ñuy gañee élection bi kenn mënu ko gars yi ni quand même wax ñu ko quand ñu gém ko mu ni da ngay dem ci kër ku nekk seeti ko soo fekkee añ nga añ ci ci tibu sénégalais yi ñu doon léegi boo fekkee añ nga añ waa ji ataaya la jox la njar waxtu julli fekk la fa nga ubbi robineem jàpp soo demee mu ni kii moo baax lekk nga añam naan soowam naan ataayam consommé ndoxam nga dem mu ni moo baax ku ku ko yëg sénégalais mais nii la ñuy woteel nit ëllëg boo nekkoon candidat présidentiel yow laay woteel parce que da nga fi ñëw tey nii la ñuy gagné élection nii aussi lañ koy perdre parce que waa ji dafa ma romb nuyu wuma c'est nii nga def dafa daw sama yaram nii nga def parce que nit ki soo ko yëgee rek mhm. yaa ko moom te tey jii da nga gis suñu kilifa Abdou la mu daan wax mhm. euh, may seen ma may papay nation bi noonu la ci boole woon ak papaam noonu la ci boole papaam papaam def ko daan wax maay sa papa mais yaay président yaay sama président monsieur le président laa lay wax alors ni nga def dafa important Diatara j'ai aimé j'ai apprécié ni nga def diggante samedi bële 17 ak tey sa nomination ngeen dégg nga sànq ci ngoon par une victoire. parce que parce que xam nga suñu suñu coutume. Mm-hmm. liñ ciy seetlu dafa bare. Mm-hmm. tey jii am na am na ku naan eh, mais Yankuba Diazram bi jëwam leer na ah ubbee na victoire ah. alhamdulilah ubbee na victoire. alhamdulilah waaw lii yànn na sax yànn na yàgg. tànk yi daf ma neex. heure bi nga ci bi nga ci jóg. mu heure bu nga xamee ni ak fa ak fi ma la yëgoon ca basket bi nga war fa dem fa ma la yëgoon euh, mu xat te lii nga def balaa mi ni Sénégal yëpp dinañ ko yëg waaw Sénégal yëpp dinañ ko yëg parce que def lu baax da ko moomul dafa dafay dem fu sore sore démb maa ngi daan am mais gis nga li yàllay def bi ma wax ak yow au téléphone ba pare ma ni ko jatara dem naa phase finalu nawetaan Thiès. rapidement lui et moi on a échangé keroog Souleymane Ndéné moo fa nekkoon di ko présider. rapidement on a échangé ci booru touche bi. booba temps yaa doon meeru Thiès. gis nga li yàlla def booba temps programmé nañu mhm. bis bi. je suis content je suis content je suis très content. waaw euh, nii ngay teelee mhm. euh, programmé nit ñi ci ñu ànd ak yow spontanément. ànd spontanément sans condition parce que gagner di ànd ak nit euh, mu def la confiance yow ci sa bopp bu dee joué da nga daan joué ba mu la ñuy wax daan ku la boot di bëri da nga koy ñaanal mu daan parce que bu daanoo sa kaw lay daal mm-hmm. waaw kon li nga am euh, Yankuba yan na woyof yan na woyof yal na woyof Sénégal dafa di pays bu sport un jour je me souviens la veille d'un d'un grand match Habib Thiam agsi di balay stade bi c'était Léopold Senghor amul poche amul poche boo mën a dugal beneen loxo et il dit voilà pourquoi ce ce ministère là mënuñ ko bàyyeek n'importe qui quelle est la discipline ou le secteur qui peut réunir tout de suite 60 000 personnes c'est le sport principalement le football te nga nekk nag ci fu bare nit fu bare nit da nga koy woyofal mhm. euh, Bécaye sa sa équipe du Brésil Zagallo dañ ko nime yow comment tu fais Zagallo comment tu fais toi l'entraîneur du Brésil di entraîneur u Pelé Gerson Rivelino Jair Zino Claude Waldo comment tu fais mu ni je leur donne la parole l'entraîneur qui dit je leur donne la parole li may doxalee ñoom ñoo ma koy jox mooy li nga def tey ji mooy li nga def tey jii jatara kontaan naa ci kontaan naa ci yan ànd bi tey sax te yan bi woyof yan bi woyof man man du ma la félicité alhamdulilah dama la ñaanal xam nga kañ laa félicité <laughs> bu jotee bu jotee ku ci ku fi toog dana dem France avant Matar <laughs> ci a fait huit ans et trois mois. Absolument. François bopp moo gënoon yàgg. avec avec sept ans. François. Joseph Mathiam cinq. Matar euh, kii ki Ousmane Paye cinq. ñi gën a yàgg en moyenne ñëpp c'est trois ans. Euh, su boobaa nag ci laa lay féliciter. bu dem jotee ci laa lay féliciter. te da nga nekk ci milieu bu nga xam ne néguloo ba ñu ni lay yaay meeru yaay yaay. yaay euh, ministre des sports nga soog a dem vers le sport dama doon citer les cas de réussite yu jóge ci des ministres des sports issus du mouvement associatif j'ai parlé de la Dia qui est athlète qui est volleyeur qui est footballeur de Youssou Ndiaye qui a joué au football de Ablaye Matar qui est international handball Matar Ba qui était un produit Euh, du sport keroog bi muy ñëw il était le secrétaire général du Navétane et tant d'autres yow ci terrain stade ci ci ci match de football la ñu daje avant bi sportif bi ñu fa daje mais booba temps fekk na yàlla du ñu programmé yàlla na woyof yàlla na woyof yàlla na woyof yàlla na barkeel te li nga def dafay barkeel parce que nee naa keroog bi xale yi ñëwee mm-hmm. ce fameux 6 février ma ne leen ku jooyloo sa waajur mbégte dootoo wàcc yoonu bànneex waaw mag aussi soo ko defalee teraanga ju nga xam ni gis na ni yëg nga ko yëg nga ko gis na ni yëg nga ko dugg nga ci yoon wu nga xamee ni c'est jalonné de laurier yal na yàlla def yal na ko yàlla def bu doon sama sago dama lay wàccee léegi kaamil mel nee nañu pour résumer kaamil ñetti xulwaalaaw mooy mooy tëj kaamil ñetti xulwaalaaw moo koy résumé di ko ubbee fatiya di ko tëjee fatiya bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril mahdubi alayhim waladdallin qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul wa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nastain yahdina sirata almustaqima sirata allazin anamta alayhim xayril mahdubi alayhim wala dalin amin yanquba jatar dénk naa la ki ma yaakaar liñ ci yaakaar yàlla bu suñu yaakaar tax jërëjëf jatal jërëjëf jatal teraanga ji nga ma jox tey yàlla na ngay yàgg di ko di daje ak moom di daje ak moom ba fa neex yàlla jërëjëf jërëjëf kontaan naa